salaamaaleykum merci président monsieur le madame le ministre de la justice monsieur le ministre du travail et vos collaborateurs ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu collègues députés yëpp xam naa sama mbaxana bi moom tey xaw naa jaaxal gars yi nee leen ma summi ko ma lànk parce que buñ fi dugalee nes yi boo xam ne waru fee dugg kenn waru maa summiloo sama mbaxana ma koy nangu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 Euh, commission d'enquête parlementaire boo xam ni tey dinaa xool yéen lan moo tax yéen ngeen dugal loi d'amnistie da ngeen di baale mais ñun duñ ay dof sénégalais gis nga ay ay nit njaay lanu bàyyi leen seen yi ngeen di def am na loo xam ni c'est pas sérieux c'est pas honnête mënuñoo rey ay nit ba pare ñu xëy tey jii ni nangam man bi may ñëw laa jot yóbbante la président du parti Serigne Moustapha si na leer mu ni loi bii bu ko kenn voté